waaw kay jërëjëf maa ngi di nuyu yéen ñëpp di leen sant bu baax surtout Elmo. Elmo vraiment mënu ma la fay ba ñu xamante ne dafa yàgg yàgg na lool dañu bekk bokk sam benn xarit ak la sant bu baax a baax di la gërëm kii bi soxna si peñ alhamdulilah maa ngi di sant yéen ñëpp yéen ñëpp gis naa ni ngeen taxawoo affaire bi sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp bon soxna si nu mu feeñee. ni mu ni mu feeñee donc dafa jékki-jékki bopp mu woo ma téléphone mu ngi jooy am benn waay boo xam ne ma ne su jox ma kooku su ma jëlee kooku foofu expliqué ma ginnaaw Touba Touba Langsar la feeñ mais moom soxna si ci boppam moom bañ koy jël ba mu damay laajte clinique bi ci la benn paa nekk soxna si clinique boobu ngay laajte fa laay yóbbu sama soxna sama soxna mu ne la ci kanam oto benn pajero bu ñuul la. nee benn par jour bu mu demee foofu mu ne ko foofu laay foofu laay yóbbu soxna si bu moo génnee fa la yóbbu soxna si soxna si dal di tugg comme jabaram la nee na jabaram la daf ko yóbbu ci clinique ba soxna si dal di bu mu duggee ñu daw tuuti am beneen jigéen bu nekk ci kanam léegi bu ñu tooyee ba tolloog jigéen bi ci la ko waaj ne kii sama jigéen la moom ci clinique ba la jëm kooku ba mu ubbee bunt ba ci la ko daldi pompe nee boobu la gis nga xam ah, la nekk waaye oto bi nga xam ne bii pajero bu ñuul boobu mi xam ne moo ko jëlee ci corniche bi ci rond-point bi ku ak oto ba ko dugal ci benn kër oto ba ko dugal ci benn pare léegi nag ñuy werante ñii naan nañ ko rey ñii naan duñ ko rey ñii naan kii jarul rey parce léegi ñu wax borom këram du feebar ak euh, ay doom yu mu bàyyi ñaari doom la bàyyi yoon ñaari doom am léegi nag nañ leen ko bàyyi bi ñu koy bàyyi nag ñu daw moom ba su ñu dal di bumax ko teg ci bët yi bumax ko mu daanu ñu nangu portable bi nangu souvenir naturel bu mu nangu xaalis bu mu yoroon ak poche bi ak carte d'identité léegi nag ci la commencé di daw di daw teew bu ñëwee ba jib ay nit ñoom ñu gis ko tànku nen yooyu muy def ak yooyu ñooy tam daw ñu teg ko ab dof daal ba finalement benn xale bu góor daal moo ko mujjee moo mujjee taxaw ba expliqué kooku xale bu góor bi dal di woo ma téléphone ay dix heures yooyu la dix heures moyen vingt deux heures moyen démb ci guddi sant naa leen yéen yëpp gërëm naa leen merci beaucoup. encore une fois merci beaucoup. waaw jërëjëf léegi moom euh, maanaam ñoo ñu jotu ci xàmme kenn de. si nee na na ci doon dawal euh, oto bi. ci nekkoon ci kanamu oto bi. Mm-hmm. ñaar ñooñu moom nee na leen ak gardien ba nekk ci kër gi. nee kër gi moom benn ponk lu gardien moom moo fa nekk. Mm-hmm. xàmme na gardien boobu waaw. kër gi ci biir Touba la. biir Touba Lam Lamsar parce que bi waa police defee o géolocalisation ak waa intérieur. même même lieu bi lañ trouvé Touba Lamsar. Hmm. Touba Lamsar. waaw Lamsar ci penku Touba. ci penku Touba bi waaw. mais à part deret jooju amul leen luñ ko def. non non nee deret boobu daal amul ko aussi defuñ ko dara. est-ce que moom ba mu demee am na am na ñu fa fekk foofa ca ñun jàpp ak yooyu. mais nee na kii bi ko doon euh, dugal ci benn kii rek la ba moom kese moom moo fa nekk ba sax am na amoon na instant xam ne néeg bi karo kese amul amul bassin amul dara karo kese amoon na xam ne ñu mu ngi ci à côté quoi léegi nag moom bëgg a rëcc pour daw ba mu génnee foofu ci la tasee teg gardien gardien bi dafa koñee ko. dal di buumaat ko dal di tëj tëj tëj néeg bi mais ñoom ci seen bopp am na ay jigéen ñooy àndal mais nee na tam seetlu na foofu am na suuteere nee na foofu seetlu na am na ci jigéen ñoo xam ne nag bu dee bu ñuy prélevé dañuy sol euh, masque mais am na ñoo xam ne ci soluñu masque te boobu tam euh, nee mu ngi dégg ñuy communiqué seen biir ñu am kooku ne saa bu leen génnee bu ngeen génnee rek. dañ leen parce que dëkk bi fu mu nekk nii commencé na commencé na tàng quoi maanaam autorisation yi ñuy laajte comme am ngeen foofu prélever euh, li ngeen soxla foofu ci deret rek mais bi wóoratul léegi mu ngi dégg am na ay tissus yu bëri bëri ay tissus yu bees yoo xam ne tissu figo orange ak euh, expresso yu bëri yoo xam ne kenn dajee ko. dañuy yore ci ay portable lu mu toll. la. waaw. Ah. maanaam ñoom doy na waar daal. ah. ma ne ma ne foofu daal milieu bu doy waar la kon. milieu bu doy waar la mais mu ngi biir Touba gi. mu biir Touba gi kon comme yi comme gars yi localisé nañ ba kam quartier bu mu nekk. Ah, xëy na ci kanam tuuti war naa dem police ak gendarmerie comme ça xëy na peut-être ah, jërëjëf waaw yàlla baax jërëjëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf